ceerno neena gannaaw sant yàlla julli ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam caggal yettude allah julde e nelaada allah salallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mbokk yëpp mbeen calmina bandiraabe ɓe pop góor ak jigéen mag ak ndaw debbo e gorko suka e mawɗo neena ñu ngi leen di ndokkeel tamit ci guddi gu tedd gi o wi eɗen mbaɗa ndokkeel julɓe ɓe fof e jamma tedduɗo o ñu ngi jéggalu yit ci jotaay bi nu mu yàggee ceerno wi eɗen ñaagi yaafuya kadi e jonde nde no juutiri ni neena waaye lépp yiw la rek kono fof ko moƴƴere tan neena teral ki yàlla teral teddinde mo allah teddini neena loolu ngënal rek len ciy am wayu ɗum ko ɓural tan heɓatee heen neena boo xalaatee njabootu badiri boo xa saa siftori yimɓe badiri nga bëgg leen teral jiɗɗa teddinde ɓe te it nga ñaan yàlla ci teraanga boobu yal na la yàlla taas ci yiw gi yow ak sa njaboot yépp ci barke sahaba yooyu kadi ñaagoɗa allah tabaraka wa taala nde allah teddintuma o tasma barke o ane ko taarima fof sababu nde barke sahabaɓe ɓeɗon e dendagal yiɗɓe ɓe fof ak mboolem soppe yépp o wi ɗum omo sikki ko moƴƴere tan woni heen ceero neena fognani loolu yiw kesa moo ci nekk oyi sabu ko haala ɗo ko fof yaltani allah wi nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wi ceero neena liñ fi wax yépp génnul ni yàlla neena yonti yàlla muhammad sallllahu alayhi wa sallam neena o wi gila e imam abdallahi mbaye la tàmbale suñu woyjuri góor gi abdallahi mbaye o wi machallah ko haali ko fof fawi ko e deftere allah e sunna nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nena mboolem kaddu yum fi yëkkati mu ngi ko wax ci téere yàlla bi ak sunna yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi imam moussa kadi kazalika imam moussa tamit neki noonu o wi oustad pape makhtar silla kañum ne ko hono noon oustad pape makhtar silla momit kazalika o wi enen noon fiɓde meɗen ko hesɗitinde liman e nder ɓerne me ɓerɗe meɗen e yidnude tagore nde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ceerno nene ñun suñu bëgg bëgg moodini bee salat imanu billahi ci biir xolu jullit ñi sopp loo leen yit yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam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 تيرو نينا بو يونتبي صلى الله عليه وسلم وخي صحابه يي لولو ني دادي نك بيسالي سين ايمان بالله تي كلمه لا اله الا الله بيم وخ ليغي وي ايمان بالله ستوي هيوي اي برنه نيدو او على كو حولتا سو وانا الله على كو ييدتا سو وانا الله على كدي مو ريواتا سو وانا الله تيرو نينا نيت كي بوكو يالا ديمبالي با ايمان بالله فيست بير خولم بي dootul ragal lu dul jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala dootul bëgg lu dul jëmmi suñu borom bi subhanahu wa taala dootul jaamu it lu dul jëmm suñu borom bi subhanahu wa taala o wi ɗum feeñii e gollal yimɓe badri hee nee na jëf jooju nag feeñ na loolu nag feeñ na ci jëfu ahlu badar o yimɓe badri ɓe ngannduɗaa ko yimɓe hoorɓe ko tampuɓe nee na ñi demoon xare badar ay góoru yàlla yi nga xam ne dañoo woor te it sonn ɓe keewaani kadi ɓe ngalaa ka ɓorde bëri wuñu yore wuñu ay arme o wii eɓe kucciti e ɓeen ɓe ngannduɗaa kooraani ene jogii kaɓorɗe ene mbaɗɗi ene ñaami haa deeri mumen keewi te nii kadi njarii sanngar mumen kadi pawi heen neena jullit yaa ngi janag mbooloo mi nga xam ne wooruñu te bari nañu yore nañu arme ñi nga xam ne dañu lekk ba seen biir yi fees ña ca waroon naan sàngara sax teg nañ ci seen sàngar di zeere ko o wi ɓe kucciti noon e ɓeeɗon julli julɓe ɓee noon kucciti e ɓeeɗon julliti daadi janag ñooñu o wi so wonaano iman billahi ɗum waawataa wonde nena budul won sahaaba yooyu seen iman billahi dafa wér nena janoogoogu munul nekk ceerno wi so tawi no neɗɗo o iman billahi heewi e nder ɓernde ma ceerno nene nit ki bu la yàlla dimbale ba li ñuy wax iman billahi daal di fees sa biir xol o wi yidde nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam arat huufa ɗum haa iman billahi o waawa tabidde e nder ɓernde ma taw iwata siyata نانا بوكو بو يالا ماي نيت كي ايمان بالله ليغا خامني موي تيوفيلو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم دا فاي نيرو دا فاي نيو وور ايمان بالله با ايمان بالله دو سن دو ген تيو نيت كي دوندي نونو سو تاوي نون ايدي نلادو الله صلى الله عليه وسلم نون انيمتي نك جيكوجي ماكو ني نيت كي نك بو بوغي نك يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم دا جيفي ليغا خامني موي جيكوم neɗɗo noon o jogii ko konngol tan e golle ceero nene nit ñaari la am kaddu ak jëf ko wii e jimol makko ngol wa qawluhu layyinun wa filuhu hasanun o wi kanko nelaaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam konngol makko ko konngol newingol nena mom yonti allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam kaddu yu nooy lay wax lay wax ak sahaaba yi ɗum noon aan jiɗɗo nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam a ñemtinat nelaaɗo o e konnguɗi maaɗa nena yo mi nga xam ne nag sopp nga yonti allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee bay wax na nga roy yonti allah muhammad ci ni mu doon waxee kaalaa ko moƴƴi nga wax lu baax etoɗaa waasde haalde ko boni nga góorgóorlu yit ba doo wax lu bon وفعله حسن كان صلى الله عليه وسلم نانا وفعله حسن مم الله محمد صلى الله عليه وسلم غول مكو فوف كوموجي نانا جفم ييب باخ وفي أن سيدي نلاد الله صلى الله عليه وسلم إتو نيمتين دي قول نلاد الله صلى الله عليه وسلم يومي صبح نك الله محمد صلى الله عليه وسلم ceero nena naga roy yonti allah mouhammad ci ay jëfam looy jëfati lune seetal nalla ko yonenti bi daan defe nga defee ko noonu o wi gollema yo mojju say jëf na baax o wi neɗɗo o sohaalama moƴƴi gollema moƴƴi nit ki bula yallah dimbale sa wax baax sa jëf rafet tawti anniyema ñu daadi fekk si sa yéene aan ma jeye e yimɓe moƴƴuɓe to allah tabaraka wa taala nee yow di nga bokku ci jaamu yàlla yu baax fa seen borom bi subhanahu wa taala dum non ceerno wi eto den wayde non nañu jëm ñun ñépp ñu gor gorlu jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñuy wax ak suñuy jëf o wi gooto emen kala ƴeewa so tawi wonmo jogondirɗa e nder ɓernde ma walla ene joganima e to ɗon jaafondiron ko adi mayde ene fero ceero nene kenne kune yiɗyagana kam so boob ɓuure am na kinga tayel on sisabir hol walla moom mu tayel ceero nene kenne kune nanga gorgorlu gaɗadi jeggalu so mbokk bala deedi bette nde wonno neɗɗo saɗa yiɗi yaafeede a jaɓat yaafaade nene nit bo bogge yo allah jeggal yo tamita ngay nangu jeggale saɗa yiɗi yurmeede a jaɓat yurmaade bo bogge yit ñu yeram la yo witɗa ngay yerame o wi pamakhtar haali ɗum joni joni pamakhtar waxna ko leegi o wi neɗɗo no fonkiri ceerno makko nene nit ni mo fonke sériñam no yiɗiri ceerno makko ak ni mo bëggee sériñam e no jogori yaakar e ceerno makko ak ni taalibe amee yaakar ci sériñam lajal makko yetto appam daadi jot o haalano goɗɗo o wasiyo ɗum mo daadi wakmo benen mbokkam denku ko kaddoyoyo so allah hoddiri ko hoddirta ko bo yallah dogal e limoy dogal ceerno men o hoto juula moy suñu serigne bi bumma jiite bumma ñaanal o haali kadi ello mu daadi tami joxe ngant bi o wimi wonde e ceerno kono ɓatto duuɓi capanɗe joyi nekkak na moom luy jogi juróom fukki at mi meeɗa yiide ceerno o o waɗa hunde o yaafi musumagi sérigne bi ñu def ko dara ba mu jeggale loolu o wi on so ñaaguima yaafuye ene wawi wasde jaɓanede nena ko mel noon nak bo sakko jeggal bo moytol kendu ko nangol o wi ɗum noon eɗen mbawi janggude e ɗum ɗo nena li worna nek jangat ñun ñepp ñu jangci o wii ngannden holno ceerno o wayi ngannden enen ne holno poɗɗen waade ñu xam sérigne bi numu mel ñunit kenn kune seet set sa bopp nan nga war a mel yowit o wii enen poɗɗen waɗde ko muñen kala ko mbaɗeɗen njaafoɗen njaaforoɗen sabi allah ina e laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam ceernen ni ñu war a jikoo mooy ñu muñ mboolem yit luñ ñu def ñu baale ñu jéggale jéggale ko ngir jëmmi yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam o wi ko ɗum tan woni ko ɗaɓɓate nene li rek moy liñuy wor o wi goto arino e nelaɗo allah sallah alah wa sallam o wi nelaɗo allah sallah alah sallam amna ɓenne wawi buñi won ce yonentiɓe sallah alah wa sallam ne ko yonentiɓe o wi mbeɗe yiɗi mbasiyoɗa kam konngol gotol ngol ganduɗa mbeɗe wawi malirede hen aduna e lakara dama bëgg dal nga denkima ɓenne kaddo go xam ne danaci japp ngoyci texe ci aduna ak allahira nelaɗo allah sallah alah wa sallam wimo automatic kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bul mer hoto tikku bul mer kadi hoto wat goɗɗo ko ene tikkina bul jëf keneen tamit loo xam dana ci mer aan saa waɗaama hotoma metin yow buñ la defee li lay merloo bul mer kono noon aan eto mbaasaa wadde goɗɗo ko ene metti ko ne tikkina ɗum yow it góorgóorlu nga bañ a teg keneen loo dana tax mu mer ceerno wi ko ɗum woni sababu etiɗen wadde ndeɗo jonde lolde mo nek sabab ño dajale julliti ci melokan bi ala ko ɗaɓɓuɗen hen so wona welu ya allah sakkuñu ci dara luɗul ngaremu suñu boromɓe subhanahu wa taala enen noon eɓe allah arsugini yen mbaddu e maɓɓe mbaddiren e maɓɓe allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam ñun nag ak mboolem koo xam ne yàlla wërsëgal na la nga teew fii ñu bokk ak yow liggéey bi ñu daal di ko ñu daal di koy def ngir jëmmi yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam enen fof ndenden ndendi den kadi njuulen waktu allah ñu ñëpp yit ñu bokk daje daje doo tamit jooxe ndoo farata gi nga xam ne moo nekk suñu kanam nde wonnoo ko ɗum woni farille men ndax loolu mooy suñu farata sogasi gasi pawen hen naafila bu ñu jullee farata bi ba noppi teg ci naafila o wi naafila o noon ko salaatu tasbih suñu naafila bi ñuy def guddi tey mooy tasbih salaatu tasbih moo ngannduɗaa salaatu tasbih bi nga xam seram seeremɓe ɓe ɓe kaali ɓure mum jamma e ñalawma sëriñ si waxtaane nañu ngëneelam guddi ak bëccëg o كون لا الله صلى الله عليه وسلم مجر ندم بابا نمكو هنا سيدنا عباس ابن عبد المطلب وجنجي ندم صلاة تسبيح ونوادرته ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم مكو باخيون باي تخم بوبو دي عباس ابن عبد المطلب مخمل كون لنك وردفه او وي بابا ارتامي ركما هون يو سما ويجور دونيو ما مايلا دارا o wi mi tinndinma huunde nde ngannduɗa sa waɗi ɗum denndaangal bakkutuuji ma gadiiɗi e cakkitiiɗi ɗi teyɗa e ɗi a teyani cuuɗiɗi e peeñi fof allah tabaraka wa taala yaafuma mune baay ñewol ma tegtalla lenn loo xam ne boo ko defee mboolem say bàkkaar yu jiitu ak yu mujj yu nëbb ak yu feeñ yoo tey ak yoo teyul yépp sa borom bi subhanahu wa taala daal di la koy jéggal baabiraaɗo wiima aha kay mbeɗe yiɗi ɗum wayjur bi ne ko aha kay yonente bi bëgg naa loolu kay nden noon nelaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam haalanimo salatu tasbih o boobu nag yonente bi sallah alayhi wa sallam daa di koye jàngal salatu tasbih bii salatu tasbih o ceerno wi ko darɗe nayi ceerno neena salatu tasbih bi ñeente raka la o wi darnde fof ko fatiha raka bune fatiha e simore ak sar laawol gootol ɓenne yon o wi qul huwa allahu ahad o tan hiji hen nee bo jange fatih faate ba noppi nga jange qul huwallahu khajna ne nde wonno qul huwallahu fof en ne mbaawi ɗum neen qul huwallahu ñëpp ko man ene jogi non sifaji kewdi no waɗirtee nee amna ay façon yu bari ci ay kanam yu bari nga xamne mom lañ koy defé defee kono ceerno men ceerno saidu muntaqa omo yaltini sifa gooto o annda kam ɗo ƴetti sifa o kono sifa o kam ne foftini neno ceerno saidou mountaqa imam fale ca halwar am na benn melokaan goo xam ne moom de gis na mu koy def xamul nag fu mu ko jëlee waaye melokaan googu moom noppal na ceero wi ne anndi ganndal makko e witto makko o gollata hay huunde so wonaa ɗum o ƴetti ɗum koye deftere nee na xam na ne xam-xamam ak wër gi nga xam ne moom lay recherche xam-xam du def dara ci kaw suuf lu dul loolu def ko fekk ci téere ñu bind ko sa darim ahu ci a huccitiima a hucciti funnaange bo taxawé djublu kana djublu penku ay wi allahu akbar ngani allahu akbar wondude e anniya mum tagi nga bolé ci yene bi ada wada salatu tasbiho yaa ngi julli salatu tasbih bi anniya o kam sohlaani haalde e demgal neena yene ken du ko tuddu ci làmmiñ o wi wona tan ko e nder ɓernde loolu dan koy dan koy teewal ci sa biir xol rek on sahaa sa haljiti jannga fatiha boo noppee nga daal di jàng sa fatiha woni bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin haajoo fa mooy lii nga xam ne moom la jàng mooy bismillahi rrahmani rrahim ba wala dallin amin o wi pawa heen simoore nga daal di ciy teg saar o wi simore nde kone raɓɓide raɓɓide ko fof qul huwa llahu ahad kam ene wawi wonde ɗum nena sarbi lumo gatta gatta gatta moom qul huwa llahu munna ko neka o wine wonnoon qul huwa llahu dendagal sifaji ɗi fof nana nder hen nena qul huwa llahu mboolem melokani yeb yallah tankna ko ci bir qul huwa llahu ahad te yit won moƴƴere wonde heen dañotaa ko so wonaa e ndeer qul huwallahu am ne mbaax yoo xam ne mu ngi ci biir qul huwallahu munoo ko am feneen ci biir alquran lu dul ci biir qul huwallahu rek oyi qur'ana noon fof ene moƴƴi nene téere bi yépp baax na kono noon qul huwa allahu ene moƴƴi e nder moƴƴereeji he waaye nag am na jagle gi yàlla def ci al ci qul huwa allahu ci biir qul huwa allahu rek la ko def o wi ene moƴƴi tan e nder moƴƴereeji he baax na ci biir mbaax yi o wi jom defte ɗe mbi ko so a jangi qur'ana laawol gootol ene wona tataɓal so jangi qul huwallahu gootol ene fota e tatoɓal alqur'an borom teeri dañani boo jàngee benn qul huwallahu ahad ba mu jeex mel na ni jàng ñetteelu xaaj alqur'an bi saa jangi haa gas nii noonu boo jàngee ba noppi mbiya subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar saa welaama kaaɗaa ɗon bu la neexee nga yem foofu ساوي لا بلا نخي بيدا هنغا دولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تقل فاتحة قلنا فاتحة اسمور إيه أكسار نجنغا دملو نجا جانغ ليمو وخ سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا بسبع جوين جانغ كفكك جرومي يون nee na nag o wi kalten ɗo noon ko riwaye ceerno saidou ceerno saidou o nee na riwaye ceerno saidou nag moom lañ fiy wax nde wonno ko on ɓuri foftinde fekk ne boobu moo gën a noppale sa waɗi ɗum sappo e joyi boo ko defee fukki on ak juróom mbiya allahu akbar jagga koppi ngani allahu akbar nga jaadi ruko o mbaɗa ɗon kadi subhanallah nga defa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar laabi sappo e joyi fukku ak juróom بام طلا أنبيا سمي الله لمن حمده غداري تمي جوك نسمي الله لمن حمده أنبيا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول سايلام بولانيخ سايلام بولانيخيت نغيم تي تميت الله اكبر بي نجانغا دون كدي لا بي سابو جوي فوفيت نجانغ فوفوك يون اك جوروم ndeen noon njahaa cojjoyaa boo noppeci fukki yoon ak juróomi ra ngadaa di rot dem sujuud so a sujjii boo sujudee njanngaa ɗoon laabi sappo foofu nga wax fa subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar fukki yoon ɓamtoɗaa njooɗoɗaa ngaɗaa di siggi toog njanngaa ɗoon kadi subhanallah nga jannga fa subhanallah haa gasa laabi sappo fukki yoon tamit cujjaa sujud immiijoo ngaɗaa di anndi ñaarel sujud bi don nga jang fayit subhanallah alhamdulillah ha jofa bamu jeex la bi sap fukki yon o wi sa calculer do bo calculer lolou ma dañ di ji di di joyi bi ya di ding ci am jurom ñaar fuk ak jurom yi nga xamne mom lañu soxla ci raka abi on sahano pam da nga dar darne dimire ne nga jadi jog nak andi ñaareelu raka abi mbaɗira kadi honno wirunoma darde arwaninene gadadi koye defe comme nin ko defe on cen raka abou jekki ɓi o wi noon noon ha jettoyɗa noonga koye defe ba noppi ha to tahiyyoto baccato jotawi tayaba on sa ɓamtima boobu nak bo jogue a waɗata ɗon subhanallah bo jogue taxaw ɗo wax fo subhanallah saabu a waɗino ɗum a gayni ndax defongako ba noppi o wi tahiyyatu o kañum mbaɗɗa ɗum ha joof gadadi ko fayi jangga bamu jeex cilmina gadadi selmal walla nga baña selmal nga en sone ñaari raka yu desi o wi riwaye ju ɗiɗɗi fo ngari ñaari riwaye yeppu ñewna ci gaddira darɗe ɗiɗi goɗɗe ɗe gadda andi ñaari raka yenen yu desi hono darɗe ɗiɗi gadiɗe ɗe no mbayni nikki ñaari raka yu jiitu ni ñumel on saaha cilmina wona darɗe nayyi ɗe gasi nga selmal mu nekk ñenti raka e jeexna o wi subhanallahi ji ɗi nee na tasbihaat yi nga xam ne moom nga doon def kanji foofu yooyu yëpp wanal ko téeméer tati ñetti téeméer subhanallahi ji ɗi o wi ko ni woni salatu tasbih ni la ñuy defee salatu tasbih o wino e riwaye mo ceerno saidou yaltino ci riwaye bi nga xam ne moom la ceerno saydou génnee o wi riwaye goɗɗo noon ne woodi am na beneen riwaye on noon ɓuri saktade e defte ɗe boobu nag moo gën a siiw ci téere yi kono oɗo noon ɓuri foftinde way nag bimo gën a noppale mo mbaɗɗa hen foof bo ci mun def o wi ko hunde wotere tan ɗaɓɓete hen benn mbir rek lañ ci soxla o wi jaɓanede mooy nangu suñu borom bi subhanahu wa taala o wi mo mbaɗɗa hen foof so allah jaɓanine mbooci ci a def bu la yàlla nangule o wi tan hawri e sawab dajena ak sawab o wi nden noon nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam wi jinnaɗo mum yonente bi daal wax nag wayjuram boobu ñande foof noon saɗa wawi wat nene boko ko mune def bis bu ne defal so a wawa ñande fof bo munol bis mune yontere fof mbaɗa semaine bune nga def so a wawa bo munol lewru fof mbaɗa weer wune nga def so a wawa bo munol e nder hitande ci biir at ɓe waɗi heen haysoko gotol ci biir at mi goor gorlul nga def ci dontene benne yonna so ɗum fof newaki nen lool yépp bu jappandiwul e gurdama sa dundu goor gorlul moom sa dundugi moom nga def ci dontene benne yon tinno gurdam maɗam kam haade ma mayde gollani hen soko gotol o wi salatu o no mawniri doole ne salatu bi numuri ye eno heewiri ɓuri ak ni mu bari ay ngenel hotoma nan ɗum tan noon buko de grek nak mbiya allah yaafima kam mandal yalla jeggal nama bakkatam gaddiɗo sama bakkat yu jiitu e bakkatam cakkitiɗo ak yu mujju e bakkatam peño ak sama bakkat bu feeñ e bakkatam cuudi ak sama bakkat bu nëbbu emo teyimi emo mi teyaani ak bima tey walla teyuma mbiya hanke noon aɗa waɗa ko mbelela ngane nag da ngay dëkke e def le la neex ceerno neena ala juulɗo waɗata noon ceerno neena déedet jullit du doxale noonu nde wonno aan ka ñaagir yow danga ñaan a anda a rokkama walla a rokkaka xamo ndax may nañ la walla may yaguñ la ɓaydi noon a anda a rokkama walla a rokka comme kanag wóorugule ndax jox nañ la walla joxaguñ la koy kumpa ngo ngonɗa ci kumpa nga ne te ko jango laaɓoyta te it ëllëg la mbir mi di leer aan noon gollu jaakoroɗa allah jëfal nga yaakarti sa borom kono noon mbasa wadde ko moƴƴani tayit nga baña def lu baaxul o wi ko ɗum woni ko ɗaɓɓa heen ko liilen ci sohla hoto wi kadi oɗo naafila omo moƴƴi ɓol waxni naafila bi baaxna pawaamo e dow farila bamu bamu bamu tolliti yo fenn nga daadi koye tegci kaw julli farata ala faam juulde farilla kam ala ko fatata ne nanga xam ni julli farata yemowul a gara sabu farilla sa naati heen julli farata bo citabbe gila nde kelli feɗaande bi nga nekke muskallaf haa maaya ba nga genn aduna o wi tellita ko ma dula wacci sa ala ngantu ko wayno rewɓe bu dee lu mel ni jigéen ñi amuñu ngant kala nde a juulaani sa yo julliwul a yoɓo yet de ngay fay waxtu woowu o wi salatu tasbi noon julli salatu tasbihi nag sa juulaani a yoɓata boo ko julli do ko fayi te kadi هاي juulani hay hunde fawaki e dow ma boo ko julliw tamit amul lenn lu ñuy teg sa kaw loos kon noon on jaarama no feewi ceerno nee na ñëpp jërë ngeen jëf yo allah wallu min walla on yal nañu yàlla dimbali dimbali leen ɗum noon yo allah humto haajuuji men enen fof yal na yàlla faj suñuy aajo inchallahu mbeten juuɗe men shérif duwono en juulen ñu tàllal suñuy loxo shérif ñaanal ñu julli bisimillah ñu nangu ñaan فاتحة أك صلاة الفاتحة آمين بين آمين يوح آمين آمين آمين آمين آمين آمين, آمين.